Matthieu saar ñaar ginnaaw loolu yéesu ak taalibe ya jege woon nañu yerusalem ba agsi dëkku betfase ci wetu tund oliw ya noonu yéesu yebal ñaari taalibe ne leen demleen ci dëkk bi ci seen kanam bu ngeen àggee dingeen gis mbaam mu ñu yeew ak cumburam yiwi leen leen indil ma leen te bu leen kenn waxee dara ngeen ne ko borom bi da leen soxla kon ca dina leen bàyyi ñu dem yeesu def na noonu ngir lañu waxoon jaarale ko cib yonent am bi mu naan waxal waa siyon seen buur a ngi ñëw ci yéen ku lewet la te war mbaam sëf dig cumbur doomu mbaam noonu taaliba yee dem def loolu leen yéesu sant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 nañu ne osaana bi nga xamee ne yeesu dugg na yerusalem dëkk ba bépp yëngutu ne kii moo di kan mboolo ma tontu leen ne kii moo di ci yàlla yéesu bi jóge nasaret ci galile bi loolu amee yéesu dugg ca kër yàlla ga dàq ñépp ña fay jaay ak ña fay jënd mu daaneel taabal yi weccikatu xaalis ya ak tooguy jaaykati pitax ya naan mbind mi nee sama kër dinañu ko wooye këru ñaan ci yàlla waaye yéen def ngeen ko këru càcc noonu ay gumba ak ay lafañ ñëw ci moom ca kër yàlla ga mu faj leen bi nga xamee ni saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya gis nañu yëf yu doy waar ya mu def te dégg xale yu ndaw ya nekk ca kër yàlla ga di wax ci kaw naan yow sëtu bi ñu daldi mer noonu ñu ne yéesu ndax dégg nga li ñuy wax yeesu tontu leen ne waaw dégg naa ko ndax musuleen a jàng lii ci mbind mi ci gémmiñu perantal ak ñuy nàmp sàkkal nga sa bopp ay cant bi yeesu waxee loolu mu bàyyi leen génn dëkk ba jëm betani fanaan fa ci suba teel yéesu dellusi ca dëkk ba mu xiif noonu seen garab bu figg ca yoon wa waaye bi mu fa agsee gisu ca dara lu dul ay xob rekk ci kaw loolu yéesu ne ko dootuloo meññ mukk ca saa sa figg ga daldi wow bi nga xamee ni taalibe yi gis nañu loolu ñu waaru naan nan la figg gi daldi wowe ci taxawaay bi noonu yéesu tontu leen ni ci dëgg maa ngi leen koy wax su ngeen gëmee te bañ a werante dingeen def li ma def figg gi rax ca dolli bu ngeen nee tund wële jógal tàbbi ca géej ga dina ko def te lépp lu ngeen laaj ci ñaan bu ngeen ci boolee ngëm dingeen ci jot ginnaaw loolu Yeesu dugg ca kër yàlla ga di jàngale bi muy jàngale nag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 lu di seen xalaat ci lii kenn nit amoon na ñaari doom am bis mu ñëw ci taaw ba ne ko sama doom demal tey liggéeyi ca sama toolu reseñ taaw bi tontu ko ne maa ngi dem baay waaye demu ca ginnaaw gi baay ba ñëw ca ñaareel ba wax ko noonu mu tontu ko ne bëgguma caa dem waaye ginnaaw loolu xelam soppeeku mu dem ca noonu yéesu laaj leen kan ci ñaari doom yooyu moo def coobareek baayam ñu ne ñaareel bi kon yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax juutikat yi ak jigéen ñi mooykat yi ñoo leen di jëkk dugg ci nguuru yàlla aji kawe ji ndaxte yaxe ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmuleen ko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 mujj mu yónni doomam naan xej nañu wekk sama doom waaye bi baykat yi gisee doom ji ñu ni ci seen bopp kii moo war a doon tool bi nanu ko rey moom ndonoom ñu jàpp ko nag génne ko tool bi rey ko noonu yeesu laaj leen bu boroom tool bi ñëwee nag na muy def baykat yi ñu ne ko dina rey reyin wu ñaaw nit ñu soxor ñooñu batale tool bi yeneen beykat yu koy jox wàllam ci jamonoy meññeef kon yeesu ne leen xanaa musuleen jàng lii ci mbind yi doju tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci borom bi la loolu jóge te yéemu nañu ci loolu moo tax maa ngi leen koy wax dinañu leen xañ nguuri yàlla dénk ko xeet wuy def ay jëfam ku dal ci doj wii damutoo ku mu dal ci sa kaw rajaxe la bi nga xamee ni saraxalekat yu mag yi ak pharisiens yi dégg nañu léebam yooyu ñu xam ne ñoom lay wax noonu ñu di ko fexee jàpp waaye ragal nañu nit ña ndaxte ñépp teg nañu ko ab yonent